jiital nuyu bi sëñ Alaaji Fallu Mbakke di jël nuyu bi di ko teg ci loxo mu tegal ma ko ci sëñ Muntaxa Mbakke tegal ma ko ci ñu yëpp ak xalif généraux ci Sénégal yëpp maa ngi nuyu nag euh, ñi fi nekk yëpp tey ci inauguration tali tey muy ay infrastructure yoo xam ni promobile la kooku président de la moo jël loxoom mu ne tey Sénégal gépp bëgg naa ville yëpp ñu nekk ay ville ñu bañ a nekk ay bureau ville bu dégg ko promouvoir maa ngi sant bu baax président de la république ndax tey ba ma recevoir keroog sama wetu maag sama frère Dame Aminta ñoo toog ma ne ko monsieur le président mu ne ma le maire ma ko man xam nga lan moo ma ñor bëgguma ministre bëgguma docteur dafa la ma jaaru rek am jaaru rek jaaru ma sama lépp lan soxluma leneen lu dul jaay président dina loolu de loolu luy yomb la mu oo ci saa si jëndal ajurul mu ñëw mu ne nañ ci jàppale kon président tey bu fekkee tali yi pare na liggéey nañ ko te ma waxoon ko ay tali mu def ko kon président la mu ñu waxoon ci tali yi dem na ko kon dama koy sant di ko gërëm ndax nit ki nag su la defalee teraanga da nga ko war a sant ndax bu xool njaare na mu meloon xool fii na meloon ak tey nu mu mel tey nga xam ne Saalum changé na xam kanam jaar na loolu bu président moo ñu ko président Macky Sall kon ne nekk say interprète ci président soo demee nga ne ko waa Njaareem kontaan nañ ci liggéey bi nga xam ne def na ko ci dem bi indépendance benn gouvernement deful ci njaaree lu ci président Macky Sall def loolu la yàlla def na am ndax man du ma wax lu amul tey indi na fay làmp indi na fay ay tali def na ko kon boo demee nga ne président waa njaaree monsieur le ministre kontaan seen fan fekk ci moom ndax lu ñu fi def ba place indépendance tey kenn def ko kon di wax ne encore une fois de plus di sant bu baax waa Ageroute ci liggéey bi nga xam ne baax na am qualité presque liggéey bi mu ngi coûté 7 milliards et quelques am na yeneen programme ci nekk en phase de préfecture entrée dëkk bépp nañ ko defar c'est projet projets connexes donc programme bi nga xam ni ñu ngi koy def bu baax mu ànd ak éclairage ndax dëkk bu leeree sàcc yi dootuñu sàcc bu guddi jotee nit ñi day mën a jaay ba 2 heures du matin tali bi côté yu mu jaar am nay tali sax développé te loolu la Ndiarène bëgg comme ni périphérie bi développé nañu loolu la président bi pour Ndiarène ñu ngi sant monsieur le président de la République di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale kàttanal ko Sénégal loolu ci tool di wax nag waa Ndiarène waa Ndiarène waa Ndiarène damaa bëgg Ndiarène ñu nekk benn damaa bëgg damaa bëgg Ndiarène damaa bëgg ñu nekk benn suñu mbooloo. lu ne mën nañ koo def mais buñ divisé wu duñu mën dara te ñun li ñu bokk muy njaaram kenn mënu koo xar man ñaan naa yàlla ba ba may jóge maire du ma fi wax kenn lu ñaaw mbaa ma def ndax dara jaru ko caag bi ëllëg dina def ma dina xet bi suñu ko tànnalu am kon di leen man naa sa ma seen fay yàlla leen fay yàlla leen fayal mbokki Jurbel maa ngi leen di nuyu di leen sant bi ma santee yàlla ba pare julli ci rasul alayhi salaatu wasalaam di nuyu le xalif général de murit di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér yaram mu yàgg fi lool suñu kanam ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa su loolu jàllee maa ngi nuyu monsieur le ministre Dame Diop mi nga xam ne moom la yàlla def tey président dénk ko lépp luy formation professionnelle mais aussi lépp luy insertion ndaw yi. maa ngi nuyu également ki nga xam ne mooy monsieur le maire de la commune de Diourbel monsieur le maire maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay et di la féliciter di la xamal ne li nga xam ne def nañ ko fi tey yàlla def na ci sa ay la ñëw kon damay ne bokk ngeen ci tey. histoire Diourbel ngeen nekk fi ak ñàkk fi nekk yàlla def na bi daam nekkee ministre formation professionnelle yow bi nga nekkee maire de Diourbel kenn ku ne toogee dina ne boobu la ñu indi tali kon maa ngi leen di féliciter ci loolu mais du ma yem nag ci féliciter leen olof yi dañoo mën kàddu dañu ne ku mënul leble timit war a mën a fay bor leble bi nag foog naa ne lii lu wóor la le président de la république moo leen ko digoon def donc ko ce n'est plus un slogan nekkatul loo xam ne nekkatul slogan lépp loo xam ne ne diggéenoo woon na ko ak yéen ci wàlluk infrastructure ci wàlluk éclairage public ci wàlluk assainissement moo ngi ci góor góorgóorlu kémtu lay kàttanam yéen a ko wax yéen ne tey ci tey ak tali yi am képp ku fi doon liggéey mu nekk ku yore jakarta mu nekk ku yore taxi mu nekk ku doon liggéey ci charrette kenn ku ne gis na ci boppam loolu mooy le développement d'un pays développement réew yemul rek Ndakaar ak ak Diourbel développement réew Sénégal gépp la président def na ne li may def fii tey tant que maa ngi ci réew mi ak foo mën di nekk ci Sénégal li nga xam ne moom nga ko ci état bi dinaa fexe bu mu yegg si ci yow kon li may jeexale yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla nattu tey ngeen nekk ci kanamu askan wi muy le maire muy le ministre muy les directeurs généraux muy les chefs de service te yéen ñëpp ngeen gëm lenn mooy gëm réew mi gëm Jurbel gëm le président de la République na ngeen jàppoo ngir yàlla na ngeen jàppoo ngir li ngeen bokk je vous remercie de votre aimable